ak mbiskit yi ok comme d'habitude ah. ah bu leen dóor xale yi nga wax leen ñu kii rek ñu toog ah ana ba géwél ñëwagul egsegul ku leen laaj rek Aliou ngi nelaw dégg nga parce que xam naa ne moom fañ doon jaare gaay yi rek fa ñuy jaaree gaay yi <laughs> tanta nogay ngi woote sànq sax waaw nee na ma xam naa ñu ngi ci kii yi ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan ñoom ñëpp ba géwél moom xam naa ne du bàyyi gars yi nelaw bu fëggee a ngeen ibil ko moom rek laa may ngeen bàyyi ko mu dugg dégg nga. bilaay mbiye sal so àlloo jeba waxoon naa la yow doo moroomu gars yi xoolal instant bi gars yi yéen leen jiitu xoolal du ñu mës a sa ginnaaw xoolal dama nekk si école yi école par école école par école yëpp yaa nekk si kanam déggoo li ma la xoolal maa ngi dem ñëwaat xoolal maa ngi lay indi résultat yow daal xoolal amal jàmm rek maa ne mhm. bul sonal sa bopp dañuy gagner on va gagner oui ma da ngay dem ba côté kooñu Ahmed waaw tu vas jeter un coup d'œil dans les euh, dans les de vote là mhm. nga xoolal ma euh, les résultats provisoires je veux pas écouter la rajo. amul problème yow yaa ko ni ma koy waxee ak émotion bi rajo bi du la waxee noonu. jiitu nga leen <laughs> ah, dawal xoolal ma nga <laughs> <laughs> ma ne ko ma ngarale. dëgg ci ma ngarale. Seynabou. yaa ngi dégg de. kon sarax waatal ñetti ñetti ndabu ah? parce que waa yi njëkk génn baax na amee ah, ñoom fu ñu doon jaar ak gars yi jaar ak gars yi ba géwél moom il est intéressant quoi <laughs> eh, ah Mbiye Sall eh. waaw ñëwati naa de ah. waaw waaw ñëw mbégte rek waaye nag mu ngi topp sa ginnaaw ndax xaw na la jege xaw na la jege mais yaa jiitoogul mais xaw na la jege amee ah, loolu mooy élection waaw loolu mooy élection xam nga élection moom noonu la xam nga foo fa ma foo foo mu am ay tendance yu xaw a jege. mais t'inquiète pas. ba tey am naa yaakaar léegi léegi fexeel ba tànn biir bi may may xale yi. tey ci guddi gi wala lundi bi. Mm. fekk bu yëpp officiel. waaw naa tey bu ñu amee tendance yi dañu xam kuy maire. incha allah dégg nga nga wax ko gars yi may xale yi concert ak tànn fi ñu ko doon defee chaque année. buñ musaan am victoire yu mel nii dégg nga. maa la gëm de. waaw léegi da ngay dem nga xool dernière tendance sur Apple TV xam nga man yooyu ni moo koy joxee moo ma neex. bilaay walaay bilaay ma ne yow amal jàmm rek. <laughs> waaw waaw ma maa ngi demati. Uh-huh. Euh, paa yi ñu ngi def ñaan j'espère. yee ñoom ñoom nee nañ buñ sonn dañ def rek. bisimilah rek nekk amoo si sax. waaw waaw waaw dégg naa ko ñu may. ñu may ootal <laughs> man je l'écoute avec détachement. man dama koy déglu ak détachement. ndeysaan incha allah jërëjëf maa ngi maa ngi xoolewaat. ok je sais euh, tout à l'heure. jàmm rek ngay am. maa ngi la waat espoir les gens là mbër boo ko doonee benn yoon daaraat ku la lii de ku ma ko waxoon duma ko gëm lu xew bee sall ñàkk nañu de ñàkk ñàkk nañu de troisième vague bi ñàkk ngay wax la ay dara de jël na ndam li ndax nit ñi dañ lay topp rek naa la yow la yaw la fekk du yow. nga ku jël ndam li. Ahmed Aïdara de jël na ndam li. ay ma la xam. Thank you. métti na de mais nañ muñ rek. loolu jaru ko jox ma. tu as vérifié. yëpp kay yëpp. kay li mu rawee ndaxte sax dafa bëri. lan laay wax Macky. moo ma jaaxal. defal téléphone bi or mode avion def ko mode avion. Ama Aidara mel. moo ñu gañe de borom tës. lii kay du tës lii tasaar la. Hmm. na laay wax ma ki. walaay walaay métti de. xam li nga liggéey fii si géejawaay. c'est réellement ki laa gagné. moo gagné man kay xoolaat naa bureau yëpp yi ma demoon yëpp jaalaat naa fa. dafa mel ne man damay sekki nii yow gisoo loolu. ok loolu laa gis man dama naan ndax Aliou mi ma gis nii ndax moom la. c'est yow da koy jiitu dem bay ba côté fin bi. moom si la la doublé. Hmm. Hmm. Hmm. boo amee noonu war a jeex waaye dafa mel maa gisoo na maa ngi changé yaa ngi sekki de. na laay wax ma kii. moo ma jaaxal. Ahmed Aïdara même. moo gagné de. Aliou lan la. Hmm? lan eh, de moo gagné. Hmm? doo doo woo Macky nga nag. Hmm? Macky isa ñemeñ naa ko wala ma oo ko jox alors yaa ngi avance di arrière rek laa la. dama bëggoon jeex waaye mënuma jeex dama bëggoon jeex. waaw ni nga toll nii moom mu ngi gën a yokku de. yaakaar naa Macky bu gis ne du yërëm. waaw ah, waaw booy gën a booy gën a booy gën a jël yaram moom du dul la yërëm moom. gën a sekk rek. ku gañ rek. Ahmed ni nga meloon si géejawaay. ah ni nga meloon si géejawaay. ñëpp naan la yow la yow la yow la ñu xaar ba ba jour voté ñu ne du yow. Hm. xam naa dama lay mujjee bàyyi fii ah, ñëw ci kër gi nga woo ma kenn ku ne ñu ngi ci kañ. dama dama xam Macky daf ñuy dóor daf may dóor billaay daf may dóor bàjj waxoon na ma sa yat damagul ba tey daf may dóor hmm? doo mën a ñëw woo ma sama nijaay Kabirou Sall mu ne du ñëw ku gañe Ahmed Aïdara gañe yaa ngi ñaxare. waaw. Hmm? bu xaaree musaan am. Hmm? boo xaaree musaan am. Hmm. géwél mooy féete ci kanam. mais bii paa am na bii jiitu. dimbali ma rek dañuy dem kër Macky nga ci kanam rek nga ana suba. ok daa mer ma bàyyi nga dem rek jiitu rek. ma topp sa ginnaaw. waaw jiitu rek. sama gàcce gi ci xajul ci naa beneen bunt bi ngay jaare